Mm-hmm. président CNG amateurs yi ñoom du jànje ko mm-hmm. euh, jaale ko tamit champion yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, euh, réew mi yëpp mm-hmm. di nangu it seenug njaal man moom bu ma neexee jaale ba pare di jëlug njaal wallaahi wallaahi bu ma neexee dem jaale ji yóbbu jaxal ma nekkee neexee lekk jaxalam ndax daf maa lew tax na nag maa ngi koy jaale nag waa kër ga waaw sama yaay Sadio Diatta maa ngi koy jaale bu baax a baax suñu papa jooju di Double Less da ko yàlla xaree ci àjjana yi gën a kaayoo ko jaale ñoom Maymuna ko jaale tamit ñoom commissaire Sa Thiès Balla Gaye moom Omar Sakho di ko jaale ñoom Aziz Ndiaye di ko jaale ñoom Aline Diaw ñoom Baare Gaye Kilin ko jaale ñoom Alaaji Malick Gakou waa Sénégal waaw di ko jaale waa Sénégal gi yëpp daal wallaahi waaw gépp gépp ñu ngi leen koy jaale ñu jooju ñoom Lamine Golo ñu koy jaale bu wér di ko jaale ñoom maay ba Omar Seck hmm. vraiment jaale ko waa école ba yëpp di ko jaale tamit euh, ñoom Ron Sall ko jaale ñoom guy gi lak dëggeer hmm. waaw tund woowu daal ak waa Kër Massar nga xam ne foofu la këram nga nekkoon hmm. fara fara ne ñu ngi leen koy jaale moom suñu papa jooju yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe sa xam nga tey ci télé bi alaaji dama ni waaw dafa am ay boroomi kër yoo xam ne dañuy dem ba ci yàgg dootuñ contrôler mhm. bu xale yi màggee mhm. Mhm. dëgër yàlla bu leen yàlla xéewalee nag alaaji yenn teraanga yi bu ñu ko amee góor gi day xaw a perdre mais ci njabootam ma ne loolu dalul du balees xam nga say doom respecté la ba nit ñi ne ñii dañoo ragal paa bi lay loolaa jaadu looloo jaadu yàlla nañu ko yàlla may ci suñu njaboot maanaam sa njaboot respecté la alaaji nawloo la. Mhm. fonk la ba nit ñi ne mais ñii ñoom dañoo ragal lees. Mhm. ak ñoo ragal seen papa. te nga dem ba am jabar am ay doom ñu continuer naan la sa waay daa ragal papam nekk star siiw. nekk star siiw yor teraanga. Mhm. tabax ay kër yor say soxna. yor say doom. ñu naan ñoom Balla Gaye ñoom Sa Thiès si baa bi rek leen ragal fi nii nii buy ñëw nii. loolu yi ku nekk war nga koo ñaan yàlla. <laughs> du gàcce de. ku ne war nga koo ñaan yàlla. loolu loolu loolu nag yàlla moo koy maye. Mhm. te loolu mayoon na ko ko. gis nga werante maa ngi fàttali bu amaat gis nga am na ñoo xam ne alaaji seen doom yi am na nu leen yàlla di may rek. Mhm. ñu am faiblesse seen kanam wala ah, alal moom ak tur alaaji da ngay waaru. Mhm. loolu musta dal du balees. góor gu am fulla. fulla góor gu am fayda. fayda ba fii na manager yore woon Balla Gaye coow gauche coow droite. dafa xëy dem wuti licence nekk manager am wax ji jeex. waaw ku jote ak doom ji woo na la téléphone ngir rataxal diggante ba. lay ndeysaan lay ndeysaan déggoo ma de. ok. wax dëgg bu jotee. Mhm. mu dóor leen ko wax leen ko. bu boo wax ji génn ci mbedd mi. problème boobu lees mosu ko looy fulla. Mhm. ñore woon këram. reliquat da daan des. Mhm. ñu naan ah waaw lees jëli na ko waaw wala déet. Balla ne sa waay leen père bi gérer rek. sama yoon nekku ci jël bi indi na ko indiwu ko. sama yoon nekku ci moom mooy sama baay. wallaahi lu mu def baax na lu mu bëgg a def baax na. xaalis bu ko neexee mu jël lépp daal di koy lekk. Mhm. moo ko war a lekk nag. waaw moom nag yàlla mayoon na ko foofu. te ñun ay témoin lañ seede. waaw. fekkee seede. Mhm. moo tax xaw ma lu moo layoo. Mhm. waaye du nekk kaay nga wax ñu ni nga yoree woon sa doom yi wala léegi-léegi lii respecté wu ñu woon déedéet ay doom yu ko respecté ko respecté ba nit ñi ni waaye wu saa te looloo jaay ragal nañ paa bi looloo jaadu <laughs> ragal sa baay. waaw billaahi ndam la. gis sa baay moom vraiment loo am war ko koo jox. wallaahi ndam la. loo am jox ko say waajur. Mhm. te toog ko deful ku nekk perte la. nga. senegal nag ngay gis moom moom moom moom nga ne fi ñu ko say waajur ba pare di jéem a jaay mbaax ki mbedd bi hmm. amul sens benn sens la amul benn sens wallahi hmm. ah ndeysaan Omar Fall pur waaw ah, waaw ñu ngi koy jaale wér waaw ndeysaan Omar Fall waaw sumeer waaw. kay de moom nee na moom rajo bi baax na. ku ñu utal fula sa kanam bàyyi de rey nañu la. billahi. Mhm. yal nañu ci yàlla musal. amiin. incha allah a amiin grand Talla Sall. añuy siyaar. seeni ngom alaaji dafa réer. Mhm. benn xale la seeni ngoom mhm. dafa réer ku gis na nga woo Moussa Dieng ci 77 107 07 66 te bi mu réeree nag ak léegi mu ngi bëgg yàgg. waaw. kii nee ki réer le lire les lunettes yi ban na dafa yor ay yu bees mhm. yoo xam ne solo ko mm. sama jigéen bi Pauline Thiam yàlla na la yàlla fay yaa baax amiin Pauline Thiam day média day ndeysaan ah, ko kenn sama ndaanaan boobu waaye ndeysaan walam jaay yow rakki du kuré rakki du kuré benn dëkkandoo mu liir le yu ma réer la ay verre léegi nag Purine Thiam nee na wax ko ban degré la parce que moom ñu ngi ak ay verre bees tàq yoo xam ne solo ko dégg nga te moom mi ngi réer kii soxna Fall mi ngi réer la ay veeram diggante BCA au plage mhm. ak rond point dalal jàmm ay booru vingt heures jeudi mu yóbbu la photogré photogré Purine Thiam voilà jàll nañ ko waaw gérance euh, euh, grand ma ko waa comptabilité yëpp ma lay dee nee na benn taximan New York suñu benn soppe la mu fa di ñu bëggee. New York waaw. voilà Mbaye Ndiaye Italie. Mm-hmm. moom nee moom rajo baa nga leer naññ foofu. même Sall bi itam nee na ma fii ci leer nañ. kii na Aline Mbaye nañ. kii nee na kon Dakar la leerewul. ah kii de nee na Aline moo fay jàll. <laughs> dégg kon kon leerul. Mm-hmm. kon leerul. <laughs> non bu dee Aline Mbaye leerul. Mm-hmm. Aliou Mbende nee na Ahmed la fréquence subie des brouillages terrible terrible kay moom la ànd ngaa wax de ah, jaale daraw jaani chéri nday ma dem maa ngi lay nuyu maître Tall ñu ngi koy jaale itam frère am moo fi jógee mm-hmm. mais Tall men waaw Talla Talla Tall la tudd moom Talla Tall maa ngi di dernier waaw fi mu nekk nii nag ma nga cene ba sekk lañ ko denc seen wetu papa. kii jaale bu baax di salaam xarit àjjuna yi a kawe. amiin yaa rabbal aalamiin sallallahu taala alayhi wa ci wax àdduna day la seen émission bu mag bi nag euh, ay alaaji ndekki leen ndekki leen ah waaw ñi ndekkeegul ndekki leen balaa maa daaneel communiqué lillahi wa rasul ndax am na ñoo xam ne boo melee ni mantul ay tey doo ndekki doo añ doo naan ndox te doo reer suba ngeen di lekkaat insha allahu rabbi gaaw leen ngeen lekk xëcc leen café geeg meew mi alaaji mm-hmm. ku ci yorub ganaar waroon ko ndékkee doon ko ñiiramtal gaawal lekk ko balaa maa tàmbali dangaa yoroonu michu yi wala ay sandwich baax waroon koo ndékkee gaaw ca bu dee dangaa yoroon tamit fonde waroon koo ndékkee gaaw ca bu dee cere ci boppam nga yoroon war koo ndékkee gaaw ca mbaa mu doon caakiri nga waroon koo ndékkee gaaw ca